أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كاشف الغمة وصلاته وسلامه على شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم إلى يوم القيامة مشاهدي ومشاهدات لز تي في asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu baaxoo di seetaan ndaw ak diine si Leuz TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole jéggal di leen euh, euh, jaajëfal itam ci weeru tedd bi nga xam ne moom la ñu nekk yaakaar naa ne mi ngi sori nag ndeysaan mu ngi sori te yiw bi itam kon yàlla yiw bi sori comme ni nga xam ne noonu la noonu la weeru di sori yàlla na yiw bi sori maanaam yàlla yiw bi di yokk di gën a bari comme ni nga xam ne bés bu nekk rek weeru koor mi ngi ñuy tàggu bés bu nekk rek mi ngi gën di waaye yàlla nañ ko fekkee ay yu bari yàlla nañ ko fekkee ay at yu bari ñu bàyyi loo xel mbokk yi nañ xam ne lu mu métti métti métti métti métti ña nga xam ne ñoo ko sos ba mu toll fii doon na métti te dañ ko doon boolee yeneen yu ko gën a métti gazwatu Badr ku ne xam na ne weeru koor la woon fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weer bii te yaakaar naa ne woor di liggéey dafa métti woor di jaay dafa metti woor di yenu dafa métti waaye woor taxaw jàkkaar jàkkaarloo koo xam ne yitteem mooy faat sa bakkan yaakaar naa dara gënu ko métti kon nag loolu buñ la ko fàttalee c'est parce que dañoo bëgg nga gën a yokk yitte dañoo bëgg nga gën a yokk taxawaay euh, bërki démb euh, bind bi weesu bi ñuy jeexal ñu ngi doon waxtaan ba taxawanti euh, yi nga xam ne dañ ko sopp ci koor ñu waxoon la saraxe ak yéen ca waxoon te lañ ca wax doyul ndax liñ ci wax liñ ko xam ko liñ ci xam moo mu ko tey nag dañuy continuer ak yow di waxtaan ak yow incha allah si ñaari tomb ñaari tomb yoo xam ne mën nga wax ne sax moom moo ëmb moo ëmb koor gannaaw li nga xam ne dox na sa diggante ak sa borom ñaari tomb yooyu benn bi mbokk mi mooy jàng alquran ci weeru koor waaw jàng alquran ndax weeru koor si lañu wàcc ci lañu wàcc alquran te jàng alquran gi est-ce que xam nga ne boo koy def da ngay euh, roy sunna si yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi ci weer yi la doon réviser alquran moo Jibril weer bu ne. jibril kaana jibril yu daarisu alquran maa rasul sallallahu alayhi wa sallam da doon ñëw di jàngat di jàngatat di jàngataat alquran ti bi di ko jàngat di ko dunyi bu la waxee dunyi mooy euh, ñi nga xam ne waxin la ñi nga xam ne dañuy yar xar ñoo xam bi xar boo ko joxee xont mu yendoo lekk ba ngoon bu guddee dafay dunyi nag ñi nga xam ne sax mokkul woon da koy génne di ko mokkalaat euh, door koo delloo ngir machine bi gën koo mën a liggéey kon nag weeru koor yonent bi da doon duññi alquraanul karim di ko jàngataat moo bi waaw di ko jàngataat ya ca nekk si ay ahkaam la ca nekk si naasix ak mansuux loolu noonu ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si alquraan xam nañu ko kon yow dañ siy wut qadr rek maanaam lim bu yem di ko jàng gis nga boo jëlee chaque jour nga jàng ñaari xisir bu weeru koor bi jeexee da ngay daal di xatmu kaamil bi chaque jour nga jàng ñaari xisir bu weeru koor bii jeex da ngay jeexal kaamil bi mais am na lu gën am solo jeexal kaamil bi waaw am lu gën a am na lu gën a am solo jeexal kaamilu alquran ci weeru koor xam nga lii ma la wax nii mën nga ko def sax dul weeru koor mooy chaque jour nga jàng ñaari xisib kon booy xool weer bu nekk da am benn kaamil at mi nga am si fukki kaamil ak ñaar loolu boo koy def ba keroog ngay faatu yaakaar naa ne yiw bu bari la waaye bu fekkoon te ne jàng rek mooy jëriñee kon loolu kenn du ko mën wax moo tax. xat mu kaamilu alquran xat mu kaamilu jikko moo ko gën kon ñun bu ñuy wax jàng alquran waxuñu rek di jàng di nafar di tari mais li ngay jàng mu lu mu néew néew ah kay di xat mu alquran dafa baax trop loolu kenn du ko dàq xalaatuñu ko sax waaye dañu bëgg ñuy seexale ñaar yi dañu bëgg ñu boole njàng mi ak li jàng mi di jeexital ci nit ki xam nga. Serigne Cheikh Tidiane Sy bi mu woy Alaaji Omar Fuutiyu Taal daf ko wax ne ko awxaa bi ma fi tayyi min suwarin xatta tamassala fi amalika suwaru fi amalika suwaru li mu ko bëgg a xuuf rek mooy dem ba li ngay jëf dootul nekk jëf mais alxuraan la jooy jooy appliqué ñi di ko gis ñu wax ne saxaaba yi buñ daan dajee ñoom balaa ñuy tàqali ko dinañ jàngante saar bi wal asr inna la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil gi firiwul lañ koy jàngante di waxante di ko jokkalante nii si kàddu waaye da jokkalante si jëf mag ñi li ñu jàngale si alxuraan mooy njàng mi dong amul mu ànd ak jëf parce que boo ko deful bu fekkee da ngay jàng rek di tari jàng di tari moom mooy jur nga am xam-xam dëgg si xam-xam bi di ko jëndee àdduna te loolu suñu mag ñi xam nga xam nga suñu maam Cheikh Ahmed Bamba wax na ko si kun man ma muy jeexal lan la wax laa tashtari dunya bi uxraa yaa fata man baa nuuran bi du fa sa yandam bul jël àdduna di ko jëndee alaaxira ndax ku jël lëndëm di ko weccee ak leer boo moytuwul da nga ko réccu waaw am leer di ko weccee ak lëndëm moo tax eh, weeru koor bi eh, xeet yi yi dafay bari conférence yi dafay bëri macha allah am na solo trop lu baax na ndax moo gën weeru koor ñi say ñi say def leneen mais loola pour lan la loolu du jar a bàyyi xel maanaam conférence yi ñu ciy def njàng mi njàng mi na ëpp njëgg mi waaw njàng mi na ëpp njëgg mi ci conférence yi njëgg mi mooy yaa ma gën a xam xam nga euh, ndaye la ko Mamito ndaye la ko Mame Cheikh ndaye la ko Birane waaw ñoo ñëpp ko tuddee leen ko ngir lan waaw ah, ñu ne góor kenn du ko nawee dañ koy bàyyi la alaakulli xaal li ma bëgg a wax maanaam bi mooy ñu ngi koy tuddee waaw ah, yi ñu ciy indi dana am solo ndax dina dimbale diine waaye dañu fexe ba njàngan ma itam ñu bàyyi ko ci kon booy xool taxaw nañu lool insisté nañ ci njàngam jikko mi waaw ah, loolu war na ma man mii war na la yow war nañu ñun ñëpp kon nañ bàyyi xel loolu waaye nag ma répété ko dàquñu dàquñu mukk ne dañoo war di xat mu alxuraan ci weeru koor lu bari loo ko mën a def lu bari bari jëlal kon loolu lu jara lu jara bàyyi xel ndax alxuraan ci weeru koor la wàcc comme si weeru koor si weeru koor la wàcc nag di ko ci jàng dafay jaadu ndax yàlla moo ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan ci weeru koor la wàcc kon di ko si jàng lu am solo lu am am solo la yàlla yokk loolu ba ka des mbokk mi wax nañ ko dimbale nit ñi ci wàllu seeni ndogu loolu xëy na dugg na si biir sarax bi ak mbooleem xeeti jëf yu baax yi mbooleem xeeti jëf yu baax yi xam nga sarax bu la neexee waxoon nañ danañ waxtaan ci naafile mais boo moytuwul naafile bi dañ koy bàyyi ba ajjuma bi di ñëw ñu waxtaan si ndax dafa am tomb boo xam ne dafa dañ ko dañ ko dañ mel dañ ko xaw a fàtte te fàttewuñ ko te dafay dugg ci biir sarax bi ndax xam nga am na benn mbir bu ñu tudd ci koor loo xam ne ñun waa senegal ñoo ko xewal wala boog xew na Sénégal yow ndax demuñ fu dul Sénégal xëy na mën naa am xew na mooy loo xam ne dañ koy génn di ko joxe ci weeru koor tuddee ko suukaru koor lu baax la lu rafet la xaw tuuti sax nga mën a wax ne dafa dagan xaw tuuti mën a wax ne dafa war waaye lu war a bàyyi la ndax bari na sëy yu mu yëngal tax nañu ñuy xeeb ku warul xeeb tax na nit def lu mu mënul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ad diinu yusrun walan yushad hada din ahad illa galabahu kon diine yombal la waaye sénégalais yàlla moo ko may dafa bëri pexe sénégalais dafa bari pexe sénégalais dafa mën a def li ñuy tuddee arnaque dafay fekk yëfu jaamur mu dugal ca boppam ba am ca sax lu sa borom amul sukkur koor lu baax la ndax xam nga ni di nga xool yëkkati benn ñaar fukki dërëm wala benn téeméeru dërëm wala benn mbuusu suukar nga jox ko ko cofeel la loolu dafay tax mu yëg ne yow mu yëg nga ko ndax wolof moo ne nag wii buñ la waxee yaakam moom bu la bu buñ la joxoon nag yëpp boo ko lekkee du la doy man nag dama naan loolu wolof daf koy wax rek waaye gëmu ko wolof daf koy wax waaye gëmu ko parce que joxe sax tey booy joxe yow nga joxe lu bari kii joxe lu tuuti ka joxe lu tuuti moom ay mbiram kenn du ko kenn du ko kenn ko bàyyi xel te yàlla du naw téeméer bi. du fukk yi parce que xam na yéene téeméer bi xam na yéene fukk bi moo tax comme ñun nag du ñu fay yéene du ñu fay quantité du ñu fay qualité quantité la ñuy fay moo tax yow mi nga xam ne yaa koy joxe yow yaa war a am ñor gu toll li nga xam li ngay def pour lan li ngay def pour kan la sukkaru koor jàppe ko comme sarax jàppe ko comme teraanga booy jox nit teraanga nag warul tax yow nga toroxal sa bopp saraxe sax waroo saraxe ajjuma sam di nga yalwaane waxin la ndax am na ñoo xam ne bu ñuy joxe te yàlla rekk tax dañuy joxe joxe ku ragalul ñàkk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu daan joxe da daan joxe joxe ku ragalul ñàkk da daan ñuqi daawul génne xam nga génne mooy nga làmb poos génne xool muy ab cinq mille nga delloo génnewaat mu nekk dix mille nga delloo génn génnewaat mu nekk 2000 nga delloo génne génne yi ba mu nekk 100 francs nga doon ko joxe dangaa génn waaye ñuqi mooy da nga daan ñuqit la nekk ci poche ba da ko joxe ko ngir yàlla loolu dara nekku ci waaye yow mi nga xam ne liñ lay def loolu dañ la koy forcer ay nit ñoo xam ne defaluñ yàlla defaluñ yenantu defaluñ pi penc defaluñ kenn mais dañ la koy dañ la koy forcer sax dañ la koy forcer ngir nga joxe ko kon loolee dama ne wala boog loolee dañoo wax ne dafa dañ koo war dañ ko war a seetaan lu jara lu jara bàyyi xel loolu ñuy wax moom si wàllu sarax sarax moom sarax la waaye bu ñu koy jël nag ba mujj nekk luy gaañ war nañ ko mën a seetaan waaw nga loolu ñuy wax ne yéen yi bu daan joxe da daan joxe te daa joxe ku ragalul ñàkk yaa ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas mën nañu wax ne cousin la woon ci yonent bi ndax Abbas ak Abdullah ñoo bokk baay te bokkuñu yaay Abbas moo jur Abdullah Abdullah ibnu Abbas Abdullah ibnu Abdul Mutalib moo jur Muhammad kon ñoom ñaar ay cousin lañu lu mu si yonent bi rek dëgg la buñ ko ko sosalu moo tax moom moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na ku tabe ab la woon ab tab ku mënoon a joxe waaye ci weeru koor la daan gën a mën a joxe moo tax li mbokk yi di def nii lu baax la am na ñoo xam ne mënuñ amuñ sax luñ joxe de waaye dañuy dem laaj ngir joxe ci am na ñoo xam ne am na luñ joxe waaye laaj gi ñu laaj ngir joxe loolu tarbiyel si ñoom. maanaam ñoom loolu di ko def liggéey soit mu nekk digganteeg seen kilifa suñu waxee kilifa nag sëriñ mën na dugg organisation mën na dugg leneen lu nekk mën na dugg waaw loolu kon ñoom am na luñ joxe ñoom mais dañuy dem laaj ngir loolu liggéey la bu ñuy def ñoom daa am kuréel gu ñu bokk daa am benn euh, euh, kilifa gu ñu topp soit sëriñ la wala sax parti politique yi ni ñu koy def te loolu nekk na lu am am solo loola ñuy jox nit ñi ngi di ko dogee boo ko xeebee wala nga koy xarab parce que dégguloo am na koo xam ne bu loolu amul woon du am lu doge kon loolu lu jar bàyyi xel la yàlla yàlla defal ñu tawféex yàlla yàlla ubbi xol yi ba ñu mën a joxe am liñ joxe mën koo joxe bu baax a baax baax waaye yow mi nga xam ne mënuloo nga def loo mënte doo gaañu nga def loo mënte doo gaañu yàlla yàlla defal ñu tawféex may leen ko may ñu ko incha allah ñi fekkee waat ay weeru koor yu bari ñi fekkee waat yeneen waxtaan ndaw ak diine si weeru koor bi incha allah jumaa mubaarak allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim